salaatu wasalaamu ala sayyidina mu léegi ginnaaw nga xam mooy xaraf yi xam ne leen xaraf yi xam ne leen muumatu mooy xam ne leen maas damm mooy maas ko bu dëng bi nekk si kaw ñu commencé incha allah u bu du su ju ho ho du zu ru zu u bu du su ju ho ho du zu ru zu asiyan yan foofu wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammad